Amante. waaw di nga tiit di nga tiit day am ndax man bi ma waxee leen nee naa day am dina jaaxle trop parce que problème yi day am xam ko di nga tiit. ma bu jàmm te kooku loo ci xam dafa ma war. Fatou Sonia depuis bi ñu nekkee xale ba tay ñoo doon ànd mais nag dafa demoon Mbuur yàgg fa trop. ah bon waaw man maa fa jëlee sax parce que dafaa nekkoon ak nekkin bu ñaaw ma jëli ko indi ko fii mu xëy def ma lii kooku dafa capable de. non lim la def nak dina la jaxal parce que yow xamoo ci yoy dara ba pare fan yee maa ko fekk kër ñom papa ñay dem mané comme papa ñay dafa dem mission xama dem séti yaay bi ma démé di yobul yaayam teranga gis nga bi ma fa fekké façon soña amul lu ma deful lu bon lu ne def na mako mais yow façon baaxul de mom nga ni mbuur la nekko waaw man tour bobu sa dafa am lu may jox ndey amee ko façon soña mbuur ya na fa trop fa façon bobu nga wax dama ko xam nga xam ko tuddu façon bu baax xamoko dama maa xam ku tudd Fatou Sonia bu baax ah mën naa am tamit du Fatou Sonia boobu ma yaakaar de sama àdduna waaye naa la xamal leen de du day bandi bandi man maa ko gën a bandi problème bi kay lan la wan ma photo wala wan ma numéro téléphone am. moomu jàmbur bu dugg sax ci lool loolu. Fatou Sonia dama kaa bàyyi ba lépp luy niróo takkandeeram yoruma ko. léegi yor nga téléphone. waaw dugal Facebook nga xool nga tàppe waaw wax nga dëgg. Okay. Give me fast running. Give me fast running. Wah, give me fast running. Lemi, xuma kañ lay yow. Lemi kii moo tax ngay rap rap. Kii de maa la mën a tegal kasetam lépp. waaye dama la ko gu léegi ndax ki sama formation la genné lan kon da nga bëgg wax ki li def yëpp yow ya ko def ci moom. xam nga bi nga wax sa biir wax nee la amna façon ñaa bu ma xam. wa mais bëgguma gaaw wax façon ñaa bi ba mu nekkee xale ba tey mi ngi ci man mbuur sama formation la génnee kii maak moom def lañ ñu nekk rey nit la genre nit ñu benn nday am yi du ma bëgg di waxtaan ak ñoom parce que da def bêtise di nëbbatu ñu wër lam réew yow lan ngay tëb tëbay rey nit ngay daw ñaata yoon laa la mos a wax rey naa nit. ah Binta maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi si jàmm maa ngi si jàmm ah maa ngi jéggalu bu baax de. ah am na solo yaa ma fekkoon sax may liir téere maam Seydi El Hadj Malick ñu koy wax xilaasu Zuhur. loolu am na solo mu ci doon wax dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mag ñi moom ay jàmbaar la ñu woon bay neen seen waar ci diine islam bi te maam Seydi Hadji Malick géej la woon kenn mënu koo jeexal loo ci tànk-tànk du teemu des ñun daal ñoo ci des ñu bay sunu waar macha allah mais maa ngi jéggalu bu baax nag ndax man maa la waroon a fekk si wallaay dëgg la loolu du dara Safiyat da moom dama laa seet si woon mm, tey moom damaa dox tànk jullit ndax daal tey damaa am lu ma naqari lool nday ami ak Fatou Sonia mm-hmm. dama dégg ni seen xarit nga léegi ñoom ñaar daf ñoo sonal sama doom torop yàqu àddinaam muy papa njaay mhm. mu metti ma torop ma jeex jaaxle torop oo ma fenn fu ma ko jooyee ma ne yow mii nekk seen xarit mhm. naa ñëw ci yow nga fajal ma loolu bu dee mën nga ci dara nga waxal maa ñoom lan lay yuuxu ni seen waakar kër bi mu ñëwee nag ki nekk fi moo tax ma tiit man gis naa li tax sax sa yaay daal ma téré may and ak yow ak sa papa ndax yow mosoo am fit moo tax lu nekk dina dal kii rey naa nit moo ma jëndali woon paaka ba pare dencal ma paaka bi moom mii moo tax ñu may wër kii damaa jaaxal moom jaam dimbali ma man yow rek laa yaakaar kii comme am na fit jënd paaka nga rey nit su ma jekkoo dina ma ko def jàppale ma léegi xam nga ci rapp-rapp ji ngay bàyyi te woo faat soññaat ci pen woo ko nga teg ko dil fexe la wax ak moom nu mu gën a gaay mu ñëw ci kër gi fii fii fii laa koy lijjantee du kër gi kenn nekk fi te woo ko mu ñëw bàyyi sa rapp-rapp ji lii la ngeen di def du konkonlu ba am problème di ma sonal lay jaamas ñaari saabu ak omo 100 francs waaye nag gaawal da ngay yéex trop yow waaw ndey ami <laughs> xaaral ma wuy ko rek xool may doye allo appel bi xanaa bett na la na ma trop kay moom Fatou Sonia dama bëgg lépp loo jàppoon nga bàyyi ko parce que man yow sama xarit nga waruñoo nangu benn yoon góor di ñu jaxase te àdduna bi dafa jeex ba noppi. dëgg amul solo. Mhm. tey nag dama laa toggal li nga gën a bëgg damaa bëgg nga jaar kër ga nga ñëw ñu reer waxtaan moo gën. <laughs> reer nag <laughs> dinaa ñëw. maa ngi lay xaar de. non amul benn problème dinaa ñëw maa ñëw si kanam amul benn problème. waaw maa ngi lay xaar ok ma chérie ci kanam. ok d' accord merci ñoo far ciao. lan léegi xam nga nan la ñuy def ma chérie may ma ma dugg ci biir li may def ak yow ni bëgguma kenn xam ko. kenn du ko xam Fatou Sonia bu ñëwee ci kër gi teg tànkam dalal ko nànk ndax Fatou Sonia il faut tey bu may jàkkaarloog moom ma am lu ma def. waaw wuyu ma naan li may def bu ma ko wax man moom li may def ñaar rek la xam nga ko. ok not problème xaaral ma dem ak reer bi sax. waaw man aw ma fit day am li ñu defandi si digg dëkk bi yëpp lu may invité may dem. mais nag dara damay dem sax ndax nday ami bopp bi ndox newu ci may dem réer ba suur laay jox ma saabu yi maa ngi ko fi nar a fàtte sax ndax appelu nday ami bi ma tiital kii sama doom iya, eh, eh, ah, lay di ma jox li ma moom ëllëg noon bi du ma reer ndey bett nga ma nag franchement ak yow lu ñu dund diggu Thiès gi yëpp nga xëy rek bàyyi lépp mu seet waaw nettal histoire day kon damaa bëgg ñu bàyyi leen. déet sax sama benn mag dafee ñëw. Mhm. ma ko doon wax say wax mu ne ma dalaa yàqamtee gis. xaaral ma wala ko ngeen nuyuwante. d'accord man xamoon naa ne sama doom lay xol bi dafa rafet. <laughs> Maba Jàmbur. ma chérie. kaay wuy faa. soña daal. <laughs> yaa ngi ci jàmm ba. waaw maa ngi si jàmm ça va. naka sa koñ mooy neex. tane na rek <laughs> ci jàmm bu baax. ay jox de. dëgg dëgg daal wuy bande bàyyi. yow day am ngay dëggil. mais di reeti yow kan nga yeb ba ma bàyyi la sama kër ga muur ah te ci say problème laa nekkoon di ko lijjanti nga tax ma rey nit bàyyi la fi dem nga bàyyi fa kër ga ñëw fii Thiès naan dangay jaay affaire de banditisme. Bella waxante bu ma laal et puis sa cigarette bi bela yow fat soña nga tuddu wala Eris. Eris fo Eris eriso yow. Vera yow. ma bu jangu lu Eris sama xarit may ma tuti ki tay du ya ak moom man ak mom la yaa ngi deg ke yow ya tax ma ray nit. ñu may wër ma bàyyi sama lépp mbuur bàyyi la fa dem Gàmbi di lijjanti li may lijjanti pareegu ma ngay ñëw naan dangay am leen luy gii ma teg nag ak sama doomu ndey mii di bandi bandilu yow Eris yow lan ngay daw eh. gannaaw ne me touche pas waaye s'il te plaît du xam nga sama diggante ak ñaar yi may def du xam nga ko keroog ba ma reyee nit paaka ba kan moo ko jëndi woon kan moo ko denc soo ma moytuwul nag paaka bi yaa ciy topp solo ngay bandi bandilu fi may waxee nag fu ku ma fay déggee laa soxla non mais yaa ngi dégg s'il te plaît dama yow nga yàq sa vie bëgg a yàq vie wu sama doomu ndey ku ma ko nangu ngay capable capable lemi mo wax. dum ndey man len rek laa bëgg parce que man seen yi xajuma ci. eh jox ko sa nopp. papa ñay mi nga jëlé won sama loxo la bëgg nga délo ma te bu lolu wéso fepp fu ma jaar ma fa jaar ndax man li xaw ma ko. bugguma nag nay amé di wax nga ci tek baat du dengali len nak la lay bëgg a yëgal. 15 jours laa la may nga day am mi li mu la wax nga def ko dara bum ci sikk 16e jour ba sa tànk bëgguma ko gis ci territoire yi jàmm gën fenn fenn nga dellu fa nga nekkoon lu dégg nga lii fa may waxee nag ku ma fay jéggee laa bëgg yow yàq nga sa vie bëgg a yàq vie sama doomu ndey te yow kañ nga daan soxla góor yow daa wax ak góor xam nga ma xam li may bëgg a wax xam nga ko imbécile. ngay bandi bandi lu te nix. Eh, eh. taxawal nday. na soxla waatoo leneen. non non ñaar yooyu de. ok solo. ñu sànni ko. j'ai perdu une bataille mais pas la guerre. yow maa ngi yow wuy sama ndey foo ma woo ma wuy la. ah ma fayal lii nag ba pare ay moom jàmbur. sama tante ma fekkee rayati ma yii nga may tere waaye yii nii yii tere nii léegi day baax ci réew mi. ay moom jàmbur waaye mi baaxul. day baax ci léegi mi ci réew mi léegi la affaire de banditisme bi may dund nii ñu bari maa leen ciy génne. Magu jàmbur est-ce que xam nañu gën naa am bànneex depuis bi soo Sonia jëlee sama loxo papa ci samay loxo laa gëj am bànneex mais tey jàppal lépp lu ma naqari woon ci sama àdduna neex na ma man lay amee te xam nga kat moo neexal sama àdduna yow mii déggal maa ngi fàttaliku nag sama yaay sama papa bi ñu ma la daan tere mais tey li taxoon ma jàppale topp la rëccu ma ko woo. kay wax la leen nag kees gi am na paa yoo xamante ni dañuy def dil yoo xam ne maa leen ciy génne kontaan naa nag trop amul lu ma la mën a xam nga sama yaay ne ma xadi mbaa bàyyi nga xet ci ëllëg góor goo gis na la dul jigéen yow da nga sama xol sa bëdi xonk na de xanaa fanaanoo Cees démb ba rek baan laa fanaan kon yow yooyu ba léegi oui billaahi moom lu ma métti quoi muy lan mooy sa booy ibaadu boobu booy Sophie billaahi booy moom fekk booy salon sa copine bi Roqaya Roqaya booy mhm. booy di expliquer man dama ñëw asalaamaaleykum rek nuyonteeg roxoy rek mu jug qui mooy Elaz ah qui mooy Elaz jug tiim ma ñii nii société bi ñii nii ñoo tax lii ñii nii ñoo tax lii expliqué di wax di genre wax lu ne mais maa waxul li mu gis rek non waxul gis man man man cek ma jëli naka waar quoi ma kaji naka waar ma ni ah. coono jib naa ko bàyyi si quoi dëgg la Elaz mais gis actuellement c'est le cadet de mes soucis man sérieux problème laa amat. xam nga Bella Bella mooy ki ma doon bi nekkoon Mbour rek. Bella la ndey ami lijjanti ba indi ko Thiès man actuellement nii loolu mooy sama problème. Bella ñëw na menacé ma amul lu mu deful man actuellement nii su fi moom problème am sax lu ndaw la si man man Bella moo ma def kaate naa la xamante Bella dama ko ragal. daf ma sëfal ba fi ma toogoon dama doon lox di kat kati man instant bi Bella mooy sama problème mais du sufi du gaamu. xam nga lu ma bëgg. saw ndaw soosu nga ma doon wax xaw ma kan nga dimbali ma ci baxam mbaa moo gën a bandi. waay booy kooku moo gën a yéeg kooku maa moom ñu ngi nekkoon nañ Californie. Mm-hmm. dund na fa lu nekk kooku façon dil bu nekk teg na ko ay day jaay dorog rey na façon doomu aadama bu ne dil bu ne teg nañ ko ci loxoom. mais maa maa nga doon kóolee xam naa léegi mu sax. d'accord nañ ko xaar xam mais coono ji bu ñëwee na nga daj na nga dal jàmm nag quoi bàyyi ko si biir quoi. man nag tax na sax léegi may commencer. rek su ñëwee rek ignoré ko yow bàyyi ko ma teg ak moom quoi. amul kalanni peurs pers, ci kes bande naka la gaen man soxna ci nga def ay daj yalla sama ciede ni ay kul wa gis na de ci fari bo ban mo tax ma jënd ko xam nga man sama ndutu ndaw mais boy comme lima la waxon rek par téléphone eh, quoi essence gérer problème quoi ben boy mo ñew xam nga bëgguma indi ay problème yo xamanteni ni xam nga du ma la sax expliquer ay détails est-ce que comprendre dafa ma sonal dafa may xatal dama bëgg dama bëgg na xool nañ ko lañ koy effacer nan lañ koy éliminer quoi. jarul wax ji di bari wax ma seen tur yow kaawu Sophie nga ay kaawu Gaamu damay ñëw parce que dil la par dil dama koy tegal ba pare parce que moom xamul leen ñoom ñëpp benn booy la benn booy ibaadu la bu dëkk ci secteur bi taalifkat la. xam nga bëgg a sonal nit ñi nii lu ne ci lu lay dugg di wax ay arxuraan ak ay aaye di dugg ci ay dil yoo xamante ni yoonam new ci est-ce que comprendre nga. te en plus boobu dafa gën a ndaw ibaadu bi moo gën a ndaw mais wax ko ñëw pour ma a majeur. mais yow noppil. waaw mais yow kii bari na wax de. c'est yaa may yëkkati wala El Capo moo ma yëkkati. s'il te plaît s'il te ci booy jàpp ma. bu ma déggaat baatam. wuy man wax ju bari damay sonu oui ma dafa am boy bi ben sen ben sen gang bi mu nekkon bour sen chef de gang bi mo len formé won ñu ñëpp yaa ngi dégg boy bobu mo dafa am ben boy problème boy bobu mo wo Bella Bella ñew fii diko menacer de mort affaire yoy non momi it wa waaw la ne te dégg naa booy boobu tamit elle est très très très dangereuse bandila day raye dégg na lu ne lay def. <laughs> man ñooñu laa yàqamti ko man ak mom dina mel. koku nak instant bi mom la bëgg ñëk nga éliminer ko ci carte gi pour ñu am xam nga yoon bu leer loolu du sa mission sama mission la seen tour laa soxla kenn ki na la tudd sofi mooy ibaadu bi sofi waa sofi mooy ibaadu bi mu tëjal ma gémmiñam mu bañ a wax kooku moom mën nga ko sax menacer waaye mi mais yow yaa bari wax kii bi ma toogee ba tey mi ngi naan wej wej wej wej yow yaa ma soxla El Capo wala moom moo ma soxla non fils coow de jëb innocent xam nga lan laa bëgg man du ma joobee nii nit ku bare wax mënumaa def ak moom suma ma bay wax na nga nopi est ce que yaa may dégg. mais bul wax nee la bul wax bul expliquer bàyyi ma expliquer ak mom quoi. yow ku bari wax nga. non ciow da jëf fis. lu nga def defaté la japp ci japp ci. yow laay déglu man mënatumaa tok sax. xolal dil bi 4 la 4 personnes la 3 personnes la la 4 la. 4 3 personnes la. 3 personnes la yaa ngi dégg léegi xam nga la la soxla won limbi nu muy demee lay jox. de na ci sawar xam na lay démé ibaadu bi moom jamono ji ibaadu yi dañoo sonal nekk ci dëgg dëkk bi di ñu waar di ñu xutba. ay seetaane lañ. wante loolu du problème maa koy lijjanti xam na kooku nan lañ koy dama koy éliminer ndànk wax ci eh, leneen. yow wax naa la Sophie kenn du ko éliminer de El Hadj yow tamit Sophie sama xarit la. noppil eh, maa ngi dem. non bul dem bis boo libre nga woo man si ma joob ak moom dafa bari wax. fés waat ngir yàlla wuy ma wuy ma ngir yàlla maa la ñaan am naa lu may sedde booy maa yow dañuy yàgg tamit quoi booy bi innocent la tamit. waxal gaaw yow laay mais oui ma seen chef de gang bi laa bëgg man nga jéem a koo lijjantil ba pare mooy booy boobu jóge xaw ma béya xaw ma lan béya nga wax. mooy tur tapet yooyu. ba ngeen a mbuur la jóge xaw ma ñëw di reyaate ay nit ak affaire yooyu. Bella la tudd. Bella la tudd yow yaay fotom fi laa man amatuma sax ay coordonnées loolu du problème moom su waxee nan lay kii man dina ko tetal ko ñu man amna ben certaine bella bu ma xam est ce que du mom? <laughs> non coow du jub léegi xam nu muy def su dee moom kooku du cuune man ak moom suñuy mbir du yomb léegi xam nu muy def léegi mom tuma yow bu ñu galani, mom day dugg facebook am xool bella bi nii bu ko photo bi man ma téléchargé ko après ma envoyé la ko léegi yooyu yëpp day gudd yéen ñaara yam yéen ñaar ñëpp bari wax hélas kañ nga mel xam nga lan bëgg dama Sophie mënuñu koo éliminer kon dañuy détruire vie man ñaar yoy laay joobee ñett ñi ci dess waxuma ak yow ki laay waxal ñett ñi ci dess loolu sama dil la du seen dil yeen waxal ci bi ndax moma taxaju ak ñaan la la jox xam nga dil yoy ma ngi koy laalé ay ñetti brique ba ñent wante sama nit nga jox ma benn brique rek pour l'instant 1 million bay 1 million bëri na de man fu may jëlé 1 million asa bi ko rew bi dafa tass de bo tassé koku seen affaire la man yeguma tass bi man ci brique laay dox wañi ko s'il te plaît mënuma ka wañi da ngay wax li nga am ma xol 500000 baay wala. man dafa yaraax sama kalpe. yéen mënumaa def ak yéen baal ma dem. waaye fii suy ma bu ma dund sa yii nag. s'il te yoon yéen ñaara yam da ngeen a bari wax. léegi coono jub da ngay wax li fi ne. ma dem léegi coono jub léegi xoolal 500 léegi garaawul bi. waaw coono yi léegi xam-xam nañu nu muy demee. baal ba tumaroo man ma convoqué la ñu tase fañ daan tase man naa la jox loolu noonu. yow nee nga doo changé ba mukk ba may woo da nga ne ma xaalis baa ngi fi looloo ma tax a dikk wante am na mission yu ma doon dox su ma demee lu raw benn birig laay laal. loolu ay naka te yow yoroo dara. non loolu ay problème mu weccet la yow boo yoree nga woo ma. dégg ma non ma loolu ay problème mu weccet la. tumuroo naa la woo ñu tase foofu. ma jox la def lenn. mais dama lay avancé de. sama yónnee ko ci loolu. baal ma dajawaat waaw coono jëm. mais Sophie kenn du ko détruire détruire yu métti yooyu de. dañ koy xëbal rek man Sophie sax nekkatul problème ci waxi Bella laa bëgg mu gën a intéressé wu. Sophie moom na ko xëbal tuuti waxuma nag nga topp ko mu koy détruire à ce point Sophie sama xarit la bul fàtte loolu. mais Sophie bu ko booy bi sëfalee après léegi léegi léegi léegi bu ko sëfalee lan la koy wax. Sophie dootul wax man xam naa ko na ko xëbal tuuti. non yooyu bu wóorul ay traces la baa ñu éliminer ko rek nañ dem sax fii dafa déjà dafa guddi te yaa ngi fàttaliku fii dafa seet xono bàyyi cowboy daf may nuroog jigéen ni man fees na sama xol mbaa di ma jox li ma moom ëllëg noon bi du ma reetaan wuy bëggeelaay vraiment Binta wax nga dëgg Fass Sodia ak Ndeye Amy samay xarit lañ te incha allahu rabbi bu la dara metti dinaa waxtaan ak ñoom donte sax ci wax laa dëkk parce que ñun bañ nekkee xale ba léegi ñun ñooy ànd. Mm-hmm. mais bul wax dara incha allahu rabbi dinaa waxtaan ak ñoom. lañ mm-hmm. ñëw sama kër indi fa coow lu rëy. te man kon ba ma dëkk kenn xamuma ci coow. xoolal lii rek fa coow lu rëy. histoire fa ñoom ñaar. ñoom la ñoom yematuñu sax ci papa Ndiaye ñu ñëw ba sama biir kër. tey daal lii rek moo ma yëkkati man daal diggante boobu moo ma metti. maman na sa xol sedd ñoom ñaar rek dinaa waxtaan ak ñoom. waaw incha allah yow bu la dara metti dëgg Safia soxna def bàyyi si jàmm xan sa day metti ma bëñ da dafa metti moom mais ak dafa ngelaw ak seen lekk si biir bëñ da dafa metti moom metti na trop mais comme que sama papa dafa voyagé woon mais ñëw na nag mu ngi soog a ñëw xaama dem jëlal la fas bi ma indil la ko. ay moo fekk fas ko laaj a loolu sama papa man maa ko laaj parce que papaam day mocc man dama cee xam ci yooyu dara. sama téléphone dinaa def man maa ko gën a di ma ci moom bis bu matee. dootu ko defati. def mu naan daal ngir ay waay ma sax bañ dafa metti maa ngi jéggalu de man de yàgg naa léegi am xolo fas baa ngi nii boo demee da nga koy fas sa baat pendant trois jours ñetti fan après nga teg ko dina sedd léegi yàlla na sedd waaye ak jàmm amiin wante soxna si man bi may ñëw fii lu baax ma ma Moussa maa ngi dem jërëjëf waaw na seet ak jàmm. jërëjëf ma waa Kelle dégg nga. sax man ma ñëwoon Fatou ba xam fan la nekk. waaw am sama téléphone ma tegoon fii. waaw man damay bëgg a jox lan. Nee, man, maar is het. Dan moet ik al al belaak op je gewoon. Telefoon, van nou weer op de maman Binta ah man de damaa waaru. maman sama téléphone léegi laa ko teg ci kaw bi. avant ki doon mocc lu di ñëw maa ngi ko tegoon ci kaw bi damaa wër a ba tas wër naa fépp gisuma dara. Safia seet nga bu baax. maman wër naa ba tas sa ci kaw bi rek laa ko tegoon xanaa jaaxle sax moo tax may wër di waaye ci kaw bi rek laa ko tegoon. Hmm? maman damaa wër ba sonn. aywa loolu doy na waar de. te avant kii mocc luy dugg si. avant moo ñëw rek maa ko teg ci kaw bi mën naa ñëw toog fii liir xilaas bi far yow nga egg ak kii de damay fen xanaa buy metti bi ñu mën ko sàcc man de damaa waaru ma li metti itam bi fi indaale ñu mën a moom dong moo fi dugg amul keneen ku fi dugg moom dong doy na waar Safiyat loolu doy na waar de ah maman jaax jaax damaa salaam soxna ngi ziar ngay def ak ana xale yi nga fa laa ñu si jàmm allah alhamdulilah sa portable nga bippeel ma ba xam sam portable dama koo wër ba sonn gisuma ko. ah wër naa fépp. ah xaaral ma xool. wër naa ba sonn. ah boîte vocale. boîte vocale li gaaw na di. ah boîte la de. te xoola papa ki doon mocc lu moom moo fi dugg bi mu demee ci laa wër sama portable ba sonn gisuma ko. Ah. moom doomu moo fi dugg papa keneen dugg fi di. waaye sa fiitu sama ban yi nga xamante ni ci lay recevoir pourquoi pas ngay jël nit di ko dugal bi ci biir néeg bi. papa yërëm ko rek. waaw mais nag yërmande dafa am fu mu yem am na loo xamante ni weesu nañ ko ci jamono nit ñi nga xamante nit ñi dañoo bari te am na loo xam weesu nañ ko ci jamono am diine am yar teewuta am fulla teewuta yeewu nit mën nga am diine mën nga am yar waaye teewul nga yeewu nit ñi bokkutuñu jikko. jikko yu bokkatuñu du ku nekk ngay jël di ko faj sa salle du ku nekk ngay jël di ko faj sa chambre lii war nga ko sóoraale avant ni da nga yeew. waaw sa fiyatu lii gaaw na di léegi léegi la fi ndaw si dugg kii ak méttiitam bii tar naa jël lii. parce que damaa foogoon ni jigéen du sàcc gis naa ko ak ni mu yiwee mu ñëw dugg si ba fii ba ñam di metti papa ak ngelaw buy ak seddaay bi loolu de moo taxoon ma dugal ko si biir néeg bi. ah jigéen du sàcc mais parents yi dañu ute yar yi dañu ute peut-être li ma def ci yow moom. parent def ko ci moom ba mu am sañ-sañu jël li mu moomul bu ma fi bàyyi woon cent millions ci saal bi nii nga koy rombe wala nga jël ko dencal ma ko ba mu ñëw nga jox ma ko moom peut-être amul yet boobu ni da nga yeew am yar am teggin teew te yeew. li bu ma dalati waay ku ñëwati na toog fii ci bàyyi. man maa ngi ci biir ci laa ko téléchargé. ah ñaan yàlla xëy na yàlla def ci sutura mu feeñ. waaye doy na waar bi de fexeel ba bu mu la dalati moom. Mhm. yal na nit ko maa bintu damaa waaru sax jaaxle nga kay moom sooy tëtëtët yow yaa lox sax jaaxle nga moom wër naa ba sonn wër naa dafa gaaw dafa gaaw moom wax dëgg yàlla man de foogoon naa ni jigéen dina def leneen lu dul sàcc ak tiitu bañam beeg ni mu duggee ci kër gi yiw nag boole ca moom de mu ngi yàq réputation ibaadu yi baadu ma dugg ci kër sax man mii ñu teg ma sax déedéet yow mii rek ak sa seetlaay kenn xalaat جوخ سمكت لطنا